mosu ñoo tàqale ko benn yoon ku nu xam-xam la ak moom kon ñu ngi koy siyaar baax bu ko defee ñu dellu ci xaside yi soog a àggale siyaar yi ya adul ya musillu ya man yuminu anta ujiri ona ya muminu fa abadan kun muminan ya sal jalal من كل سوء وأذاب والضلال يا من لنا عن وجدت وهل سمع بجاه خير من نبات وجل راي مسكني تبابات سمع بجاه خير من نبات وجل دابا مسكن اتباعي لسنة الله مسكن اقتداعي وجل يا رب يا مسكني في أرضنا لك وللمعزن والتامي داريا عن الفجور والفسق والباطل في الضعور وفي الوباء والبرايا كلها أنا وطين سربا وأقلا وجعل ريمنا ريمنا منا وكن في كبيلا دامنا واجب غير من الجهاد أسد وكان العباد هني على سيدان يا جميل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا أبي يا ذا الخلق ما في الغاري نفسي وديني ثم آلي والولد وملكا لك وديعة الأبد نفسي وديني ثم آلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا يا ما أخرايا ففي مال في الرزايا واضرب ساقنا عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من مغارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودابا يا زمان تولني ولا تكني نعاد ورم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم النصر مدى هلا محمد وذيلة لك ولي عظم الختام عندك على آله وأبي الإجابة هل يا لوجه الله جل جلاله لك دار مساياك ترفع عيوبي جمت غبل لكن الموت وكنت بماء للذي أتدره أفوت عن الأعداء ترى لوجه من نواهم لخيري سرمدا لسواد فو علمت يقينا أن مولاي كانني وأن المخفى من غراني يرده سلالي سفاح مدير المسسس لخير الدم العير الخيار خبل مجاهدا أغاتب من للدا كان يلد سيدنا محمد صار رسول الله صار رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله لخاد المنى وقد كان كل سوء يغزل سفيت وبلالاي إني محدث بكون خديم المصطفى وهو يظن سمعت وجيت البار في البار خادما لمن أخجل الياغوت ما كان يلبن سلام الجلال منتقى غلبا دواء لنا بر الألغاء الذي الغلب يغلص صروف ما وجاد عقبل للنبي وكلا بما فاخ هنا ثار يناض سننت احتوائي كلما رمت بسبا وربي لغير ساخ ما كان يمال سماع الذي ينور وفاز ما من يروى بدام وبالبسر يراد سلام الذي ينور ينور غلب منه وارين يوبد سور شاب المنتقى ليسلني وينو إلى لداي مني تحفظه تول ngeen dem jógal taxaw Ablaye Ablaye jógal taxaw benn benn ila aljannat ah Ablaye jógal taxaw waaw kay bay waaw waaw waaw yaakaari jaam ñi xaadim rasul mooy wax maqaama yanantu bi ay waay bàyyi sëñ abdoulaat bàyyi sëñ son yi bi bàyyi sëñ mutada ak sëñ saaliw nee na ku bëgg a xam maqaama yanant bi déglu ma nee na ku bëgg a xam maqaama yanant bi gën ci mbindeef yépp mu ni maqaamam yenant bi réerloo na jàngkat yépp ku ne woy na maa leen koy jàngal tey man sëñ Tuuba déggoon naa Victor Hugo woy na yenant bi taxul mu xam maqaamam Victor Hugo neen na ci yenant bi il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne quoi qu'il sa force et qu'il plus jeune À 63 ans, une fièvre le prit. il relit le Coran de sa main même écrit. Puis il remit au fils de Saïd la bannière en lui disant Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu combat pour lui et son œil voit les d'ombre aller se morne en nuit. mo jaxalon la Martin ci France mu koy woy maqamatu xayril xalqi la Martin nena si la grandeur du dessin la petitesse des moyens et l'immensité du résultat maqamatu xayril xalqi dans les trois grandes dimensions du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed de l'islam maqaamaatu xayril xalqi nee Parce que les plus fameux n'ont remué que des lois, des empires, ils n'ont fondé que des puissances matérielles écroulées souvent avec eux. Mais celui-là, Mohamed, a remué des armées, des législations, des empires, des dynasties. Des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Il a de plus sur milieu des hôtels des dieux. Des religions, des âmes, des idées, il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute race. C'est la sa prière sans fin. Sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau atteste plus qu'une imposture, une conviction. Et ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Le dogme était doublé. L'unicité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'une disant ce que Dieu est, Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas. orateur, philosophe. muxayabatun fartaxran suratal mahri apôtre guerrier conquérant restaurateur de dogme rationnel culte sans image ah, fondateur de vingt empires terrestres et d'un empire spirituel voilà Mohammed de l'islam bi mu tegee xalimaam Léon Tolstoy ko tontu laaj ma fu mu dëkk doomu Russie la moo woy sunu sang ba ci Medina la religion de Mohammed de par son avec la raison et la sagesse s'étendra à l'avenir surtout le monde entier bi mu tegee xalimaam laaj ma ku ko jël William Shakespeare doomu Angleterre la moo ni ci anglais ay bear witness. that there is one God and Muhammad is his messenger. the aborts and the neighbors chosen by him are salted against all that causes disgrace. ñun ñi ànd ak yeneen bi kon ñoo gën ñu dul ñoom. bi mu tegee xalimaam professeur Vassaya Vagayiri ci Italie ko ji. nee na kappis ko molto bene la obra di rete religioso il uomo delle islami muhammadu rasulullah nee na nessuno mai visto ono come il gran uomo delle islami muhammadu rasulullah amna na ko tontu Miguel de uno munoo lo tudu Espagne de nena ningulo a en a en subida un hombre como el profeta nabi kula musulman espagnol la làkk dañuy joxon yenen tubi wasirtu bi abdan wa khadiman bila ghammi es el solo con una que ha abierto todas las puertas de la para los musulmanes. ñi ñu ñëpp tagg nañu Yonent bi. plateau ñëpp tagg nañu Yonent bi. waat ñett la baa wala waaw wala taatobe. xaadim rasul ni balin alaaji malik ni balin maag taatombe gi seex sarb ni balin maag waaw gi. Cheikh Saad bu boo ne wallahi ma fi l ardi wa samaai kuf an min al asiyaahi naa man Cheikh Saad bu ne asamaan yi contrôlé naa ko ak suuf yi ku mel bi juddu min allahi rabbil arsi bàyyi sëñ Abdou Aziz Dabakh ca Tiwaawan Seydil Haaji maa man maay jël kon رب العرش دم جا خلاص دي تالله ما خفت تحنيسا على قسمي شرواه ما دمه اصداق من توبي والله رب العرش ما هو نينا وات ناني كو مصطفى جيجن مسوكو جور جيجن دوكو جورا ان الله رب العرش سيرنيو شيخ رفالك تشيرنو سيرنيو سيغ مسامباك سيغ بنو بني بالي ناك باغي ان الله رب العرش bàyyi sëñ Abdoulaat ak sëñ Mourtada bàyyi Cheikh Abdoul Xaadir borom bax daal ah! nee na man maay jël ah! nag man baagi ah! Mbàkke loo waat mu ni billahi lam yaati wa laysa yaati misla bni Abdillahi zil ayaati xaadir rasul leena la weesu waat sëñ Abdou Xaadir min Allah li teewaay ci waat ak sëñ Abdou Xaadir Mbàkke li weesu loo sëñ Abdou Khadir li Moustapha amul sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir li teew ku mel ni Moustapha sëñ Abdou Khadir sama ginnaaw tam bu leen contrôlé ku mel ni Moustapha du juddu billahi lam yaati wa laysa yaati misla bni Abdillahi zil looloo tax nag bi woykat yëpp wooyee sëñ Touba nag di leen léegu ci biir xasida ak muqaddamatul afda inna laahi rabbil bi gën ci mbindee fi yàlla yëpp am na sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir nee na maqaamam yenant bu dee ونجمي إذا هو ما دل صايبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى مغيبة فالدخران علمه سديد القوى وذو متر استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى مغيبة فلتقران سورة wan sëñ Bamba nee na soo bëggee xam maqaama yenant bi jàngal sootu naj mi nee na yenant bi rek la yàlla wormaal ni mu ko wormaale ma ni la alxuraan 114 saar la weesu ko alxuraan 60 isib la weesu ko 120 nisfu di 240 rubu ak suuratan najmi di 77 439 baat moom alxuraan mu xayamatun fal taxraan suuratan najmi a 341 128 tomb moom alxuraan maxaamaatu xayril xalq di 179 943 maska moom alxuraan nekk na cent vingt moom alxuraan cent vingt nisfu yoo xam ne six mille du cent trente six aaya da nga jàng faatiya jàng baqara al imran ngay door a dégg turu yenant bi ngir war ma ji ko yàlla jox maqaamaatu xayril xalqi wa ma muhammadun ila rasul xad xalat min xablihi rusulu an xayri rabbi nga romb ali imran jàng nisaay may dal lan am lahraaf lan fal tawbo hot yunus yus farat ibrahim hijri nahli lisraay maryam ta halan bi hajji mukhayyabatun fal taqra an suratan najmi do de gaturum ba dem ci saru lahzab go do a turu yenantu bi neena fofa nak maa muhammadin aba ahdi mirjal walakin rasulullah xaatama nabi wa kaana bi kulli sayin aliman maqaamaatu xayril xalqi